mu ni politique euh, waralu ko ñi war a génn ñoo génn am na ñu génn gu ñu def ci kaso bi de façon générale ñoo gisee conférence de presse wu démb bi euh, bala ñoo sori. waaw jërëjëf sëñ Babacar ñiy jéggalu comme ni nga ko waxee dañu amoon beneen interview waaye dafa xaw a xaabaabal tuuti ñaari minutes euh, di wax ni rek démb topp nañu kii nga xam ne mooy jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum yoon gis nañu conférence de presse bi mu def. waaye pour ñun dañu jàpp ne waxu fa dara lu bees ndax euh, li muy wax daanaka euh, ñun Sénégal yëpp xam nañu ko xanaa euh, lu wees wul jéem a layal moo waral tey ñu nekk di bàyyi ñii ak di wéy di denc ña ca des ñu jàpp ne lépp loo xamante ne ni dafa jëm ci wàllum pacification ñun lu ñu yàgg woote la ndax dañu jàpp ni ñii nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi waruñ fa woon a mës a nekk euh, ba tey ñi wax ñu ngi leen di bàyyi am na ñu des rek ñu desul donc dañ leen di wax rek ñu bàyyi mbooleem ñi nga xam ne ay détenu politique lañ ndax mënul taxaw jàkkaarloog askan wi naan leen ñii duñu ay détenu politique mm-hmm. alors que ñëpp gis na ne ñi ëpp ca ñoom bañ leen di bàyyi daanaka dañ leen ne ñiy toppeetuñ leen dara waaye lan la woon participation à des manifestations politiques ñañu toppe ñañu toppeewul dara kay moom mooy ñañu jugé non euh, am na. ñoo xam ndax ku naan toppee wuñu la dara. waaw mais seen dossier dafa vide bëri na ñoo xam ne dañu génn bi ñu génnee. Euh, avant même avant même loo bi. bëri na ñoo xam ne vide selon vous mais. non c'est pas une question de mën dañoo wax ne vide la. déedéet dafa bëri ñoo xamante ne ni dañ leen a bàyyi ñu génn toppeetuñ leen dara mën nañ ci lim ñoom Diop Taïf ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. def nañu lu mat daanaka at ci kaso bi ba ñuy génn dañoo xëy rek ne leen génn leen waaye loolu tam xam nga tribunal moom muy Sénégal ak feneen tribunal moom euh, noonu lay doxee ak yoon léeg ñu jàpp nit euh, téye ko euh, fekk deful dara ñu bàyyi ko Amérique sax nga xam ne léeg-léeg peine de mort lañ koy def ci nit dem ba koy waaja faat tribunal seetlu nu juum na en arrière ñu ñu ñu faat gi loolu moom xéewal lu ci Pastef ak Ousmane Sonko lu yàgg la ci àddina am déet. waaye sëñ Babacar xam nga ne dafa am ñoo xamante ne nii wax fa dëgg yàlla. la gënoon a yomb mooy nga def leen flagrant délit ñu dem Fadilou Keita bàyyi nañ ko waaye yéen biir na leen ne place am nekkul woon kaso ci post Facebook boobu mu def. Mhm. jàpp naa ne nit bu def post Facebook nga jàpp ko xanaa jàpp nga ko loxo ci post post Facebook. te lu bu fekkente ne post Facebook jar naa jàpp la ca gën a war a mën a sori mooy nga def ko flagrant délit. lu tax ku ñu jàpp ñoxar njaay ñu yóbbu la instruction bàyyi la foofu nalawal la fa ay weer ki at loolu dafa am lu muy firndeel mooy volonté wu faagaagal kuréelu politique gi nga xam ne jàpp nañ tey. moo doole ci ko jigi Pastef mm. euh, am na ñu yëpp nag ci euh, waxtaan wi ngeen tàmbalee def ak Macky la. Euh, est-ce que ñii ñu génne dafa bokk ci bu dee am na waxtaan wi ngeen seq ak ku mel ni Sonko ne nañ bàyyi booy am déet. Euh, président Ousmane Sonko El Malick Ndiaye ak ñeneen ñoo xam ne ci société civile bi la ay weer a ngi nii ñuy wax ne nañu bàyyi euh, ñi nga xamante ne nii dañ leen jàpp te teguñu ko fenn yàgg nañ ko wax yàgg na ko wax ne duma jaloge ak paaka bu ñu teg sama put wala pistolet bu ñu teg suñu bopp loola mu doon wax dara soppeeku ci gis nga ci anam yi nu nekk. tant que lii ñu doon wax ñun mu ngi euh, defaguñu ko kenn mënul xalaat na ñun dinañ dem. ci ay dialogue ma laajaat ko ci beneen anam est-ce que ñi ñu bàyyi euh, Sonko moo ni euh, nañ leen bàyyi am déet. ñi ñu bàyyi ñoom ñoo dem ba jàpp ne war nañ leen bàyyi ndax dañoo bëgg a pacifier ndax président Macky Sall la ñëpp seetaan mu ni. dama bëgg a pacifier woo ministre de la justice am ne ko jéemal jàpp Sonko loolu mu doon laaj tey la ko gën a laaj ñun tey lañ ko gën a laaj mooy nañu bàyyi ñi ci kaso yi nañu delloo suñu parti laataa ñuy wax ay waxu ay waxu dialogue ndax tey boo ne da ngay dialogue ak nit ki ci ban organisation la bokk ba nga koy invité dialogue bu fekkente ne da nga tas parti jàpp ay responsable jàpp ay militant am ba pare bëgg dialogue ak moom loolu mënul nekk loolu lu ñu mës laaj la te duñ ci mës jóg encore une fois ñoom ñoo dem ba gis ne kat fii ñu toll nii ginnaaw ba Macky Sall moom jeexal na te bëgg na dem bàyyi fi wayu rafet mu ne dinaa libérer la ma mën a libérer moo ko wax ay ministre de la justice am ministre de la justice dégg ngeen démb mu réitéré ko su fekkente ne ñoom loolu leen si jublu ñu ngi xaar ñi libéré mboolem ñi ci des y compris suñu ba Bassirou Diomaye fay ak président Ousmane Sonko. plus clairement est-ce que Ousmane Sonko wax na ko Macky directement ou par l'intermédiaire des médiateur que sont Alioune Tine ak Pierre euh, Atepa Goudiaby. du ma nettali géntu jàmbur ndax wax fa dëgg yàlla mënuma laa wax ne président Ousmane Sonko wax na ak Macky Sall wala wax na ko ko directement président Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne. lépp loo xam ne nii def na ko da koy assumer est-ce que Macky ak Sonko dina wax est-ce que Macky ak Sonko jokkoo nañ fi mu toll fan yii ñu ne. yëguma ko. waxuma ne amul de waaye yëguma ko. da nga koy bañ a wax wala. déet amul lu may bañ a wax xam nga li ma leen wax dafa leer président Ousmane Sonko bés boo xamante ne nii moom am na lépp lu mu mën di def su génnee jàkkaarloog Sénégalais yi dinaa leen dina ne leen def naa lii def naa lii def naa lii comme ni mu ko yàgg defee loolu moom ñëpp xam nañ ko suñu ay position waaye nag man mënu ma toog fii. dugguma kàddu xaw ma lu xew xam lépp wax lépp tam baaxul de. waaw mais euh, li waxu dina ndax yéen sax ci seen dunduñu parti am na yu ngeen wax ngeen waxul kenn du wax lépp d'accord nañ li waxu dinañ ko waxu li waxee waxeesuwul duñ ko wax ah, ah kay de juboo nañ waaye yéen Pastef lan moo leen gënal ñu génne Sonko génne Diomaye tàmbalewaat mbiru candidat yi bu ko defee Sonko mën a bokk wala da ngeen bëgg ñu bàyyi ko ñi Diomaye dem ci élection ñun Pastef position de principe ak respecter constitution dañu def lépp ngir faagaagal président Ousmane Sonko ndax ñëpp xam na ne moo nekkoon suñu candidat waaye comme du moom du koo xamante ne ni def na bu dul man du doon keneen mu tànn yeneen mbër waxtaan ceeg ñun ñu teg suñu ay stratégie yàlla def na la ñu def lépp terewul ñun am nañ mbër mi Bassirou Diomaye Faye ñëpp xam ne mooy le candidat favori toxal nañu élection yi ñu xeex ko d'accorduñu ci benn yoon gis ngeen dañoo génn suñu ay député pour man a voter loi bi waaye suñu député yooyu ñoo walbati ko attaqué loi bi conseil constitutionnel jox ñu dëgg kon li ñu koy wax mooy mu fixer élection yi le plus rapidement possible ñu dem ak suñu candidat Bassirou jomay Faye mooy suñu candidat. kon Sonko féete na boor. noonu la ko yàlla dogale ñoom noonu lañ ko bëggee def na li ñu def yëpp. non ci yéen. non ñun bu ñu sañoon. quand on quand on pose la question bu fekkee ne reprise du processus wala pousse élection yi. déedéet dañ koy xam nga li ma la wax mooy Pastef ci principe lay deme ñun bëgg président soo Sonko nekk candidat du tax ñi taxaw fii naan nañu salfaañe yoon ngir mu nekk candidat déedéet ñoom ñoo salfaañe yoon ba nekkul candidat yàlla dogal na ne ñun. am nañ candidat c'est que tamit c'est que tamit affaire bi mu leen arrangé rek quoi. du question nu mu ñu euh, bi ñu voté report bi ban taxawaay la ci Pastef am ak ñi mu àndal du da koo xeex gis ngeen assemblée nationale ni ñu fa taxawee taxaw ne d'accord ñu ci report ndax ñun préparer nañ suñu mbër am suñu coalition plus de 65 partis et mouvement waajal bañ ne suba la ñuy samedi la ñuy lancer suñu programme ay waxtu laataa samedi ñu ñu ñu ne ñu ne ñu ne dàq nañ élection yi ñu taxaw xeex ko bañ ko. dem assemblée nationale bañ ko ñu indi gendarmerie génne suñuy député ñu walbati ko attaqué loi bi yoon jox ñu dëgg ñu walbati ko waa ne non non non dëgg ko yoon boobu moom dañ ko solfaane ngir président Ousmane Sonko bokk Pastef doxewul noonu encore une fois. ñoom am am naan fi mu toll nii am na féewaloo am seen biir pro Sonko pro Diomaye ci biir Pastef. yàgg nañ koo wax yàgg nañ ko wax waaye <laughs> Pastef. mais am na ñoo xam ne Sonko lañ bëgg moom lañ gëm. Eh, président Ousmane Sonko ah. lañ bëgg moom lañ gëm Bassirou Diomaye Faye mii candidat bi Sonko la bëgg moom la gëm boo ko laajoon ci xolam mu ne la Sonko laa bëgg mu nekk candidat nekk président yàlla nag dafa dogal ñu suñu parti coow li ñuy waxal yëpp terewul benn candidat la ñu tànn ñëpp wëlbati ko ànd ci. bu ma kii woon ne na Sonko génn bokk ñu tàmbaliwaat candidature yi di ngeen ci d' accord am déet. bu lu àndut ak yoon duñ ci d' accord loolu kay dafa leer dañ ne. xam nga lan la ñuy wax. sëñ Babacar xam nga Sonko bu gañee mën naa jël affaire yi ba bu gën a gaaw a. Sonko gën a gaaw a Jomaay yow tamit. non xam nga lan laa bëgg nga wax. Sonko ak Jomaay Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko ku ci mën di dem da ngay gañ ñun ala kulli xaal ak lu mën di am. incha allahu rabbi mais Sonko mooy Sonko tamit de. Sonko mooy Sonko kenn werante wu ko il est au-dessus de la mêlée. waaye mbërëm moo man bëri yi fi nekk loolu la yàlla dogal. loolu kay yéen déet waxuñu am li tax jàpp nga ne Bassirou Diomaye Faye bu ñu bloqué woon candidature am dina reporté élection ci jàpp nga ne dinañu reporté élection yi bu fekkonte ne dañ ko bloqué <laughs> bul tax Georges di espérer foofu li yëngu la ko yëngala këpp doole de léegi euh, waxtaan wi bu dee euh, euh, woo nañ leen ca est-ce que sax Macky wala présidence de la République contacté nañ Pastef ne kaa leen ñu waxtaanee tolluwaay réew meek processus électoral bi. ah xanaa tey nga nangu mu nekk Pastef sëñ bi. yow léegi rek ex mal ex ex secrétaire général. nga ko waaw mais bon waaw xam nga li ma bëgg a mooy le le truc de terminologie là franchement on est tous fatigués de ça <laughs> franchement. xam nga sëñ Babacar. mënoo tas parti ba pare na da nga koy convoqué xanaa kay di nga ko delloo këyitam ba pare. ah dañuy pacifier. waaye mën nga waxtaan ak nit. déglu rek ba George dañuy pacifier. ñii ñu libéré nee nañu dañuy pacifier te ñii ñu libéré lan lañ doon toppee nee nañ moo tax ñu dissoudre Pastef kon kay nañ delloo Pastef kayitam yónnee ko une invitation en bonne et forme. président président bi génn condition euh, ci wuyu dialogue ñu delloo leen seen kayit. mais ñun lan lañ yàgg wax dañu yàgg wax ni doo ñu teg paaka ci put ba pare naan ñu kaay dialogue. non saa da nga ñuy delloo ko bu yàgg. déedéet am suñ président. ah mën naa génn. Ah, génnagul donc paaka bi jógagul am suñ candidat. bu Sonko génnul du ngeen dialogué. Eh, koy dialogué. Ah, xam nga la ma non Sonko ci biir am ngeen beneen candidat. waaw suñu candidat génnul. qui peut le plus peut le moins. suñu génnul. suñu président génnul suñu parti tas nañ ko nu ñuy dialogué da ngay wax lu yanu maanaa sëñ bi. bu la nee El Malick teewal Pastef ca palais ba. Euh, Euh, mën ngeen mën parti bi mun na laa jox mandat nga dem ca non. Euh, parti bi bu bu dialogue ñëwee parti bi dina ci réfléchir wax ne lii ak lii la mais ci li ma jàpp nga xam ne ci la ñu yàgg a nekk mooy mënuñu jàpp suñu président jàpp suñu candidat tas suñu parti naan ñu kaay leen dialogue balaa looloo am foog suñu président génn quand suñu candidat génn ñi jox ñu suñu këyit këyit suukar ñu mën a dellu en tant que organisation politique ñu daal di dellu ci suñu base xool ndax. dañuy dem wuy ji dialogue ou pas. mais on a vu le cas Idrissa Seck. Idrissa Seck. par Idrissa Seck du Sonko. yàlla non damay wax ci li nga xamante moom mooy wàllum parti. Idriss Seck le nom de Rewmi lui a été refusé amul woon parti te pourtant da doon waxtaan ak Ablaye Wade. c'est des hommes qui peuvent discuter entre eux la am na ci droit ñun. en tant que. ay nit mënuñoo waxtaan. ma ne ku ci nekk sañ nga def la neex ñun dañu am suñuy principe ak suñuy valeur ak suñuy exigence. dañ ko wax askan wi yëpp dégg ko ku mu neex nga dem dialogue ñi am parti ak ñi amul parti ak ñin tëj ak tëjul amul problème libre nañ wax encore une fois mosuñu wax ne du ñu dialogue waaye nag dañ ginnaaw bi nga xamante ne nii yii nga xam ne teg nañ ko suñ kaw tegg nañ ko. mais xanaa balaa ngay dialogue sax xanaa balaa ngay dialogue El Malick am El na fi ay jamono ngeen du ngeen ci dem bul taxaw tey ne mosuñoo wax ni duñ dem dialogue ah kay wax ngeen ni du ngeen dem dialogue ay yoon yoon parce que bàyyi woo ma ma daaneel dama ne ginnaaw li ñu teg suñu kaw xanaa di nga am terme de référence pour dialogue parce que naturellement ça waaw ma wax lan moo nekkoon terme de référence gisoo terme de référence dajaloo waxtaan demaat moo tax jurul dara loolu ah, jur déedéet tax na ba ñoom Khalifa Ababacar Sall nekk candidat non dama ne xam nga bu ah, ñu wax bu la mu jur ci yéen waaye am na ci leen li nga xamante ne man moo fi indi suffrage direct ci élection euh, municipale ak départementale ba ngeen am ay maire yu bëri ak parrainage des élus da ah. bàyyi rek ma wax la gis nga dialogue ba mujjoon a am ba ngay wax la ñu ca intéressé woon mooy lu jëm ci wàllum processus électoral te àjjuma sow moo ñu fa teewaloon ñu ngi fa woon donc loolu à chaque fois mu am. dialogue la de parce que non waxuñu ne du dialogue encore une fois ñun dem nañ lu raw dialogue dem nañu dem nañu fi euh, palais jamonoy Covid ak yeneen ak yeneen c'est-à-dire que lu mën di ñëw. dañuy taxaw xool waxtaan ak suñu base en fonction des terme de référence ñu décider ne ndax dañuy dem wala duñu dem loolu xanaa am nañ liberté boobu te noonu lañ ko mës a defee parce que nag ñun lu ñu def dinañ taxaw assumer ko. la fa tukkee koy jëfee moom dialogue ba. mais la fa tukkee leen leen koy jëfee mooy lan. parrainage des élus looloo ci dialogue boobu lu jógee. ngeen ngeen jox seen i élus ay euh, candidats. mais ñun da nga dégg ñu ne la bu bu ñu ñun par exemple d' accord woon ci parrainage sax même 2018 dañoo taxaw ko. parce que waxuñu ne parrainage warul am mais ni ko defee baaxul bii passé bi ñu voté waat loi bii nii passé pour ci parrainage malgré amoon na élu te ñun am nañu ay élu mais on a voté contre parce que principe la encore une fois on a voté contre te ñun xam nañ ne am nañu parrainage citoyen am nañu parrainage élu mais dañu mais c'est pas parce que ñun mën nañu jàll rek dañuy d'accord ci loo xam ne jàpp nañ ne du joxe inégalité euh, égalité des chances par rapport ak aux autres candidats et ça c'est extrêmement important position de principe. d'accord mais ni ngeen insister ci candidature Diomaye xanaa da ngeen a xam lu ñu xamul da ngeen a yor ay sondage yu wane ni day day jël ndam lem. laaj ko ñi laaj ñi reporter élection yi xam nañ ko. élection bu amee waaw wax lu ngeen ci xam. est-ce que dañoo am euh, firnde yu wér ne élection bu amee premier tour la Diomaye di jàll. ah ak ñaata pour cent. premier tour. ñaata pour cent. non du ma joxe ay pourcentage nag du ma gisaane kat comme ñeneen ñi. Diomaye di seen di kon. jamaay mooy Sonko nga jël di Sonko am yëpp yokkal ci li jamaay mën a am waa Njaga ñoom George ñëpp fabu nañ jóg fi mu ne nii nga yaakaar ne donc du doon Sonko plus Sonko plus la looloo leen tiital bu dem bu doon tey ñu bàyyi Sonko. léegi jamaay su faloo day jël yëf yi jox Sonkoom. ah loolu nag moom sëñ bi sëñ bi lii ngay posé comme question du question xam nga lu tax. ah président la ñu fol. président hmm. bu fol bu ñu fol. Diomaye matee na sëkk am na les épaules assez larges pour diriger ce pays. bu ko joxul Sonko Sonko gaañ ko de. <laughs> ruube bi du jàll fi Diomaye mooy Sonko. waaw jërëjëf euh, El Malick Ndiaye.